dal leen ak jàmm seen seen bi di seen njëriñ TV kii di Maimouna Bousso samp na laaj bu am solo dal di koy jëmale ci candidature kii di Amadou Ba di candidat wu kii di président Macky Sall ak coalition bi di Benno Bokk Yaakaar. un peu d'élégance et de hauteur. et mu démissionné. démissionné de son poste de premier. de premier ministre. Amadou Ba lan lay ragal. Amadou Ba mënul làqu ci poste premier ministre bi quand même pour exister. Mm-hmm. parce que démb bi muy dugg Ngor dafa dugg en tant que lan premier ministre candidat kenn xamul lan la. waaw ba waa Ngor génnee ko. mais quand même ah, Amadou Ba c'est devenu un grand un grand gaillard quand même c'est un grand monsieur. moom mu ngi continuer yor les moyens de l'État les privilèges de l'État ci loolu ci loolu lay campagne ça c'est ça c'est indécent. mais xam nga euh, république bi moom dépasse nañu indécence parce que vraiment il touche le bas mais quand même moom ne serait-ce que pour son image personnelle pour montrer que dagg na biberon bi.

kii di Amadou Ba tàmbalee ne di ko amal ba pare ci réew mii di Sénégal ndax waxtu bi ñuy wax ni ci réew mii di Sénégal kii di Amadou Ba buy déplacé wu di dem di amal ay campagne tey mbubboo post premier ministre am ba noppi te si li dañ ko ciy mobiliser les moyens de l'État si ñu jël ay takk der yu dul jeex daal di ko koy jébbal préfet maire gouverneur sous-préfet fépp fu mu mënti dem autorité daal di koy accueillir par la force te mobilisation étatique boobee ñu koy amal en réalité da koy mbubboo di amal liñ dippee ab campagne électorale di wax ci candidature am di taseeg ay foule ak ay kilifa diine di wax ci candidature am si réew mi di Sénégal te waxtu boobee ñuy wax si réew mi di Sénégal yeneen candidats yi kenn du leen jébbal ay takk der ngir ñu encadrer seeni i déplacement politique waaye sax dañ leen di dàq ci yenn zones yi ngir bañ ñu daal di fay am. li ni mel nak mom moy compétition bu déloyal bi nga xamné ne ki kii di Amadou Ba actuellement moo ngi amal ci réew mi di Sénégal té mo ngi mëne ab campagne électorale bo xamné ne dafa mbubboo poste premier ministre bi diko amal té lolé dëppawul ak dëgg dëppawul ak yoon. ginaaw lolé tamit beneen bir bu déloyal bu ki di Amadou Ba di amal moy que ne lu dess ci 2 mois pour ñu dem ci élection yi lu leer bu am moy que ne. gouvernement bu Sénégal dootuñ amati benn feuille de route ndax kii di Amadou Ba bu fekkee ne moom mooy candidat wu coalition bi di benn Bokk Yaakaar war amal campagne bu noppi ne day amal feuille de route pour gouvernement bi liggéey loolee ku ko dégg xam ne yenn wut maanaa ndax dootuñ amati temps pour liggéey ñoom ñëpp ci campagne yi la ñu nekk donc deux mois di ñëw ci réew mi di Sénégal gouvernement bu Sénégal dañuy nekk di amal campagne waaye kenn si ñoom du tala liggéeyal sénégalais lambda bi nga xam ne ne moom yoonam nekkul ci politique